al ibadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam alhamdulillahi rabbil alamin qayyumi samawati wal ardin mudabbiri l umuri wal xalaiqi ajmain wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi ajmain وبعد فاعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن العبودية الحق التي خلقنا لها كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه العبودية تتطلب وتقتضي صفات وسلوكيات لا يتم للإنسان كمال الإيمان إلا بها وهي سمات للإنسان في ذاته wa fi taamulihi ma alxalq wa ma alxaaliqi subhaana wa min tilkum simaat ma dakarahu almawla subhaanahu fi ayatin min tanzilihi alxamid qaa'ilan wa ibaadu arrahmani alladina yamshuuna ala alardi hawna wa ida xaatabahum aljahiluuna qaalu salaama walladina yabituuna lirabbihim sujjadan wa qiyaama wa min awsaafi ibaadillahi alkaamili alubudiyati annahum yamshuuna ala al ardi mutawaadiin laa yatakabbaruuna wala yatabaxtaruuna wala yaxtaaruuna wa yastaxdiruuna wa hum ala al ardi maashuuna qawlahu taala minha xalaqnaakum wa fiha nuciidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxraa kama yasiruuna wa hum mutafaaciluuna maca almacarri fi qawlih saahi haadihi qubuuruna tamla'u rahba fa ayna alqubuuru min ahdi caadi خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد سر إن استعد في الهواء رويدا لا اختيالا على رفاة العباد ومن أوصافهم أيضا أنهم يتسمون بالحلم والعفو والإغضاء والإعراض عن الشتم والسب والفحش فإذا جهل عليهم جاهل aw xaatabahum safih bima la yaliq tagaadaw anhu walam yujaaruuhu fi safahi bal qaalu bal qaabalu tilka al axlaaq sayia bi xuluqin xasan tanfidan li amrihi taala idfa billati hi axsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adaawatun ka annahu waliyun xamim wa dalika qawluhu subhaana wa ida xaatabahum aljahiluuna qaalu salaama ñu ngi sant yàlla borom bu tedd bi subhanahu wa taala di julli ci yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi ak njaam dëgg-dëgg xam ne yàlla dañu bind ngir ñu wane ni ay jaam wax ci alxuraan ne binduma leen lu dul ngir ñu jaamu dafa am lu mu laaj ci ay melo ak doxin yoo xam ne jaam bi lu am gëm yàlla bu mat mukk te melo te melo melo yooyu muy lu mot bàyyi xel kon di melo yoo xam ne yenn yi ci jëm nit ki lay nekk yenn yi nag mi ngi feeñ ci bu jëflante nit ñi yenn yi mi ngi feeñ ci diggam ak boroomam bokk na ci melo yooyu nga xam ne nag mooy melokaanu jaamu yàlla dëgg-dëgg koo xam ne am na cër fa yàlla yàlla nangu na ay mbiram aaya yi nga xam ne sunu boroom wax na ko ci alxuraan tudd ca melokaani jaam yooyu bokk na ci ñetti melo yoo xam ne benn bi diggante nit ki lay nekk ci boppam benn bi diggante di ci digganteem ak moroomu jàmm mi la bi ci des ci digganteem ak yàlla moroomam euh, bokk na ci melokaan yooyu jaam yi nekk jaami yàlla dëgg-dëgg bu ñuy dox ci kaw suuf dañuy woyof du ñu rëylu du ñu puukarew du ñu bajal waaye dañuy dox dox bu dal bàyyi xel na ñoom kat ak lu ñu mën a am ci xam-xam luñ mën a am ci alal luñ mën a am ci daraja luñ mën a am ci juddu cër buñ mën a am rek ay jaam yàlla ñu ne ci kaw suuf ñu bàyyi xel loola waaye di teewlu it nag yàlla waxoon ne suuf si ngeen dox ci kaw lu ngeen doyal wala ngeen eh, noppi ci sànni ko fi da ngeen xam ne ci suuf suuf ngeen bàyyi kaw suuf suuf ci ngeen jógee te it ci ña di dellu loo yàgg-yàgg ci adduna yi bis dara ñëw delluwaat biir suuf moom ëllëg it bu ñuy lekk yomal xiyaam ci suuf suuf la ñu jógewaat jàmm bi dox ci kaw suuf di teewlu maanaam yooyu du rëy rëy rëylu du bajantu loolu it mat na bàyyi xel bokk yi ne àdduna kon jàmm bi saa buy dox rek na bàyyi xel loolu kaw suuf si mu nekk ci cër la yàlla bind mooy sa maam ndax ci la bind sa maam Adama waaye nit ki buy dox it dana teewlu di bàyyi xel wax joo xam ne benn xakim ko waxoon. nee na yow sama mbokk booy dox ci kaw suuf maa lay laaj bàmmeel yi dëkk boo dem ay armée lañ ko fees dellu ci dëkk yëpp bari lool waaw ana bàmmeel ñu njëkk ñi nag junni at ay millions yi nit ñooñu ana seen i bàmmeel mu booy dox ci kaw suuf na nga ndax jàpp naa ne suuf si nga jóge kat bàmmeel yi maam yooyu rek la kon yaa ngi jóge ci kaw bàmmeel yi ay néew ay maam dafal ndànk koy dox te ñaaw na lool lu yàgg-yàgg suñ ko suñ suñ diggante ñoom ñuy doy dal suñuy bàyyi ak suñu maam luñ yàgg-yàgg rek ci ñoom lañ bàyyi ko kon suñuy bàyyi rek suñu maam lañ mu wax ne kon booy dox mbokk mi moom boo mënoon dox ci kaw jaww sax da ngay dox ci kaw jaww ji bañ a laal suuf si kon doxal daan te bul bu ko ndax yaa ngi dox ci sa kaw yaxi maam sa yaxi maam xel loolu yow muy dox loolu jullit bu ne war na koy teewlu ak cër bu a am ci àdduna buy dox na kon ab jullit amul fu muy bajantoo ak ak lu man a taxa nag bokk na ci melokaan yooyu nga xam ne jaam yàlla yàlla gërëm te ñu jege yàlla danañ ko woo dañuy lawet dañuy mën a baale dañu mën a jéggale dañuy mën a dumóoyu waaye duñ toppante bu leen di waxee lu ñaaw nit ko baax amut lu ñaaw kon buñ ko waxee lu ñaaw du delloo ndox amut lu ñaaw ñu ñuy delloo waaye day jëllale day jéggale day dumóoyu saa bu nit jëflante yow ngir ñàkk xamam wala doya dem ba wax la lu waxul doo ànd ak moom mel ne moom boo waxee lu ñaaw nga wax lu ñaaw boo waxee lu bon nga wax lu bon déedéet dafa sant jaam yi bu la waxee lu ñaaw nga bu nit jëflante yow ci jikko ju ñaaw yow jëflanteel ak moom ci jikko ju rafet ndax la loo waxoon lu ñaaw jañee ko lu rafet mën naa tax sab noonu soppali nekk sab sab loolu mooy bu wax ne jaam yàlla yooyu may wax saa bu ab jaahil waxee ñoom wax ju waxuwul ñoom daal lañ koy wax ne ko wax ju baax jàmm sagu yiw rek lañ lay yéene waaye amuñ lu ñuy eh, tontonte yow bokk na ci melokaan yooyu ba tey jaam yàlla yi di ko meloo mooy jokkoog seen boroom jokkoo gu sax jokkoo goo xam ne ak topp yàlla bu bu sell ak womatu ñeel yàlla ak toroxlu ci kanamam toroxlu koo xam ne li koy firndeel mooy taxaw guddi di naafila di fàttaliku yàlla di déggul yàlla doon koo xam ne sag wet day soreeg sab lal néew loolu lay tëdd ci lal waaye bari loo jaamu yàlla ndax melokaanu gaa ñu baax ñi mooy bariwul lu ñuy nelaw guddi loolu nag rek la ñuy def waaye bu jëlee yi dañuy di jéggalu seen borom loolu mooy li su borom wax ne ñooñu may wax dañuy fanaan ñeel seen borom di sujjóot di taxaw tudd sujjóot ndax sujjóot saa bu fi jàmm bi nekkee na xam ne keroog la gën a jege borom saa bu sujjóotee rek Jibril alayhi salaam nee na foofu gën a jege sa borom kon ñaanal yàlla màggal ko toroxlu ci kanam waaye ñaanal boo bool bokk na ci it ñaan boo su sujjootee ñaanal yàlla ndax jamono jooju yàlla day nangu ñaanal jàmm ñaanit ci muti guddi yow njël bi naasu la yow njël bi jéggul yàlla dara tax ñu nangul la ndax yow day salaam nee na ci xadis xursi suñu borom dana wàcc ci asamaan si gën a jege suñ demee ba guddi gi des sulus di wax naan ndax am na ku may laaj ma jox ko ndax am na ku way jéggalu ma jéggal ko ndax am na ku may kuy tuub ma baal kon bokk yi nañu bàyyi xel ne wa woyofal sa bopp ak tur ba mën a ak du mooy wax yu jaaduwul yi bañ koo topp bañ a jëllale bañ a toppate ak nag di naafi la guddi di jékku guddi di tudd yàlla bari guddi ci melokaani gaa yi yàlla nongul seeni jëf nekk ay tànne fu lañ bokk te ñooñu yàlla dañ dagg wax ne ko yomal xamee ay étage lay wutal ci kaw lañuy ñuy dëkk yàlla di leen taral ngi leen di nuyu nuyu màggal nuyu wormaal yàlla na yàlla boole ci ñoom lillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wa baadu fa min simaati alubudiyati alsadiqa an yartabita alabdu bi rabbihi irtibatan wafiqan tujassiduhu taatu alxaalisatu walistislaamu taam walxuduu alkaamil min xilaali ixyaai allayaali bilqiyaami والذكر المتواصل حيث تتجافى جنوبهم عن المضاجع li annahum kaanu qalilan min alleyli ma yahjaun wa bilasxeyrihum yastaxfiruun wa dalika qawluhu taala walladina yabituuna li rabbihim sujjana wa qiyaama وقد ذكر السجود لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد والدعاء في السجود من أسباب قبوله والدعاء في آخر الليل من أسباب القبول لأن الله سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فينادي هل من سائل فأعطيه hal min taibin fa atuba alayhi hal min mustaghfirin fa aghfir lah ibadallah inna tawaadua linnaasi wal iraada an iljaahil wa qiyaama alleyli sifatun asasiyatun li ibadillahi almaqbulina fi xadratihi alladina madahahum llahu wa qaala fihim ulaika yujzawna alghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha taxiyatan wa salaama rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada